commencé moom mooy lu tax may wax jeunesse africaine particulièrement jeunesse sénégalaise lii ñuy dox yéen lañ koy la dette buñ ko effacé woon léegi nii njëriñ la du bare la dette publique suñ ko effacé woon léegi njëriñ li bare te ma fàttali ne réew yu bare ci Afrique ñu ngi respecté seen di fay seen bor la question n'est pas là du foofu donc jeunesse africaine moo war comprendre que ne lii dox pour ñoom lañ koy doxal allah kulli alim yéen a fay bor allah kulli alim de toutes les manières la jeunesse africaine va payer cette dette donc il est temps de parler d'avenir si on parle d'avenir on parle à la jeunesse tout ce qu'on fait c'est pour la jeunesse donc tous les jeunes doivent signer cette pétition et mettre la pression

Donc, si nous voulons un avenir clair avec cette pandémie qui, qui est on doit s'unir, surtout la jeunesse, pour mettre la pression pour que cette dette soit annulée. Mais la dette publique seulement annulée, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le Sénégal paye sa dette. Tant que vous l'avez du loolu affaire bi c'est plus profond que ça quand yàggul ñuy wax affaire u racisme problème bi du ay leneen lu dul système lañu war a changer moom mooy tax changement di mën a am te changement yooyu ñu bëgg mu ñu am loolu laa bëgg de dellu si ak yéen jeunesse bi jeunesse Sénégal jeunesse Afrique ma jox leen ay firnde yu leer nañ Italie borom mi ngi ci cent cinquante huit virgule neuf du PIB en deux mille vingt cent cinquante huit pour cent la Grèce cent quatre vingt seize virgule quatre pour en 2020. La France, 116,5% du PIB cette année. Et alors, l'Afrique, le parent pauvre, l'Afrique l'oublié, ne bénéficie pas de cet euh, encadrement. Le FMI prévoit que la dette de l'Afrique subsaharienne sera de 64 virgule 64 du PIB en 2000 64 pour cent est-ce que c'est normal ñoom ñu mën a dem ba ay 150 ay 200 ñun parce que ñoom dañuy defal seen xaalis dañuy defal seen xaalis boo demee seen machine yi commencé nañuy génne xaalis bu bees les pauvres du ñu am dara ñun. ñu ne ñu doo leen passé fii loolu moo dul yoon waxi dem bi lii moo dul yoon pourquoi ñun mënuñu dem plus pour pour financer développement ngeen defal ni tali yeeg yooyu yëpp dañuy jékki-jékki rek mën ko defal c'est pas possible donc jeunesse bi da ngeen di jóg yii ngeen di xeex bii tamit xeex la ci bopp bu France ubbee dinañu marché dinañu def lépp dañu taxaw pour wax leen ko parce que moi j'ai de l'expérience avec l'animation de la rapport de force la booy jóg leen jóg leen 64 pour cent lañ ñu bloqué ñoom ñuy dem ba 158 200 li loolu ñun bi ñu développé ñoom ñu noot ñu téye ñu bloqué ñu fenn di defar seen xaalis ñun xëy na def mun na bu ñu defar suñu xaalis parce que ñoom bu dee dañuy defar seen xaalis di ko di si décider oui mais jóg leen wake up Afrique loolu laa bëgg a wax dañuy taxaw defante moom ñoom ba mu saf sàpp ñu dindi conditions yi permettre Afrique mu dem plus loin mën a jël dette ba cent cent pour cent ci PIB loolu mooy tax ñu mën a def euh, emploi nous avons en Afrique 65 pour cent de la de de de de la population à moins de 25 pour cent. 25 ans 25 ans à moins de 25 ans xale yi ñoo ëpp ci Afrique te mën nañu 65 pour cent 25 ans amuñu ko lan la ñu bëgg sacrifier leen c'est pas possible donc man li ma yaakaar moom na xale yi de Fongolébi à Touba de Ziguinchor à Yamoussoukro de du Libéria au Kenya na xale yi jóg ñu àndandoo avec les artistes avec les porteurs de voix les leaders d'opinion ñu taxaw ak ñoom defante ko ba ñu changer système yi ñuy xeex yëpp tant que système yi changé wu du sotti te. wax nañ ko léegi pandémie bi dafa ñëw gën a lëmbee yëf yi ça va être incroyable le président Macky Sall parle de récession la récession elle est là elle est mi ngi fii du nekkul suñu kanam mi ngi fii dafay metti kon nag ndax kon dafay metti nañu ñu taxaw pour metti boobu mu mën a wàññeeku pour suñu jeunesse loolu laa bëgg na wax président bureau di wax ne que affaire bi dama ko jël ak xol comme ñun ñëpp te dañ ci war a jóg ak xol te képp ku nelaw bokkuloo ci Afrique képp ku nelaw ci mbir mi bokkuloo ci Afrique nañ ko xam li ñu lebal barewut li ñu jox possibilité barewut kon ndaw yi jóg leen loolu laa doon bëgg wax wasalaam